fàtte ñun ci Serigne Touba ci murit lañ judd ñun te safar mooy weer wi ñuy profité rattrapé waat suñu waaw moo tax lii moom dañ koy def toujours ak yàqante ko ak mbégte ak liñ ko def rek xet waaw benn ay xale yu am jom bëgg seen bopp Euh, nangoo liggéeyu bëgg Fallou Benjamin te yàlla rek tax créé seen ay groupe WhatsApp cotiser seen alal euh, di nuyu président bi nga xam ne mooy Mass Koki di ko siyaa di kontaan ci moom lu ma kontaan ci moom rek dama koy xeeb waaw na ku ñuy wax euh, Toulaye borom Espagne ki nga xam ne mooy Max Lalion jiite Benz Family Diaspora sama famille samay xarit daan ñoom musicien bu ma limee juum ba ci ñi nga xamante ni ay xarit waale ñoom tumaani yónni ma xaalis bu bari ñoom Omoro ñëpp gars yi ñëpp a jàpp ci bés waaye ñoom ñëpp rek mooy loolu mooy safar moom dafa nekk loo xam ne nekkul ku ne rek loo ci def pour yow la waaw maanaam yow mën nga ko woote waaye man bu ma ci defee sama bopp laa ko def noonu la demee moo tax gars yi loolu la naan rek moo tax ñëpp a ci jàpp macha allah may gërëm ñëpp waaw waaw waaw parce que Ramadane du groupe dox daje Ramadane du groupe musique rek Ramadane famille la d'abord c'est une famille te ki nga xamante ni moo ko créé doon monument mu Thione Ballago Seck ñu koy ñaanalaale ci bés bi alxuraan yi ñu fi wàccee tey ci suba fasaale nañ ko ci fasaale ci sama baay Massamba Ndiaye ak képp ku fa nekk kuy fa fekkal ñaan suñu borom boo leen jéggal yërëm leen xar ngeen àjjana yi gën a kawe ci barke weeru safar waaw waaw loolu deret la c'est mon cousin ñu bokk deret c'est mon ñu nekk ay xarit man ak moom xarit mu bëgg ma teg ma fu mu tegul kenn waaw li ñu boole dafa bari mu wëlbati ko nekkaat sama patron waaw donc Wally moom bu ñu koy wax fële di def ñu koy gis nga a dem États-Unis. waaw parce que loolu moom li tax mu rëy du dafa am mu jaar. muy moom depuis mu nekkee ndaw ba léegi nii dafa daan am faral am problème jafe-jafe affaire këyit waaye li tànn na ko bu ko yóbbu ay yoon muy am ay waaw noonu la daan demee quoi moo tax tey bi mu amee visa bi waa léegi ñëpp a kontaan dañ ko fekk famille bi ñëpp a kontaan macha parce que tam yàggoon na bëgg bu ñuy tukki bu groupe bi di tukki ak moom te daawul ànd te mu nekkoon yeneen i bagage rek ndax loo gis rek suñu borom xam na app bi bu at jotee lay am tant que jotul tam du am waaw ñuy ñaan bis bi mu jotee bis bi mu ko déclaré visa bi mu tombé bés bi safar bi ah waaw loolu mbégte la rek ak xéwal ndax daaw la yóbbu passeport am ci sëñ Mountakha mu ñaanal waaw ci mois d'août donc bu ñëwaatee ci mois d'août ren visa am génn waaw parce que yoon bi ñu jël moom moo noonu la bindoo des nag mën nañoo dem ba yéeg wala ñu dem ba am lu ñu metti parce que ay nit kasa lañu mais ñun dara bettu ñu ci xam nañ ni lii ñuy dem nii euh, loolu la laaj yoon bi loolu la laaj mais am nay o am na ay baa am na bëtte waaye am na ay safaan léeg-léeg euh, nit mën na la xool rek nii nii nii neexoo ko mm-hmm. waaw te loolu tam bu la dalee da war a sant suñu borom mais papa yow est waa gars yi loolu la wax waaye ci muy sa biir rek bii biteeg nit koo gis muy dem rek. parce que am ku la gis jële nga waale mu jéem a dugg mu nekk ci biir Ramadan lay nekk ci biir Ramadan moom. nekk ci biir Ramadan moom parce que Ramadan mooy li wax sànq famille la. waaw noonu nag moom mooy li wax ñëpp koy am ku ko amul war tiit ndax foog naa. nit mënta doxal lu baax wala mu jub wala mu dëggu wala nu mu mënti mel la qualité yu mënti am ba du ko am faaw nga am noonu ndax loolu suñu borom daa wane misaal bi bu doon baax rek mooy tere am noonu wala jubal rek mooy tere am noonu Seydina Mohamed du am noonu sallallahu alayhi wa sallam waaw te fa mu dëkk dafa amoon noon ay noon yu sonol daan dóor nañ ko sànni nañ ko xeer saaga nañ ko lu ne dégg na te dimbali nit ñee ko taxoon a jóg waa kon nit ñi nga xam ne ñu xeebu lañu dara bu ñu gisee ay noonu yu ñuy fexee rek yu demee noonu dañoo war a sant des fois nag ñun suñu xol mën naa jeex ko man ba ma dalee sama xol jeexoon na waaw ba ma xaw a salit mais après yeetaat naa sama bopp ay jàpp ma ndax suñ tubaab mi nga xam ne moom moo woote safar gi woote màggal gi du nit deful te defu leen dara waaw ah, ñi ko doon leen dara yàlla xam na di wax ni que tout le temps que Ramadan moo moo maanaam ku bëgg rek da ñëw intégré ba ci la waxee ni Ramadan dafa am Faramaren am est-ce que mën nga ñu distinguer ñaari groupe waaw non Ramadan du question dafa ko dewul ki ko jiite nii moo moo yam moo. kenn mënul nekk ak moom siis kon na ngay ndax ku mu gis boole la ci boppam te foog naa loolu xanaa moo gën de mel noonu moo gën. waaw loolu lépp ci mooy li ma la rek loolu mooy li ma la wax rek Ramadan famille la kër la tam kër goo xamante ni tam këru euh, ku borom xol bu yaatu la muy Wally Ballago Seck yàlla daal la fa cat rek tey képp ku ci xaj aussi amul benn problème waaw la demee waaw kontaan naa <laughs> kontaan naa maa kontaan bu baax baax jërëjëf waay. ndeysaan ndeysaan mérito na ko mérito na ko ndeysaan Lille Pro dafa yàgg a sonn ci waay mais nag euh, Lille dafa sonn ci waay dafa sonn ci waay bu gaay di dem muy dégg lu nekk. gars yi di dem lu déglu nekk tey jii mu am 10 ans. États-Unis États-Unis. licence mérite la. lépp ngir Wally aussi. yaay ji dafa fonk njaboot. yaay jee ngi jooy. yaay booy yaay booy yaay booy yaay booy yaay booy lan ngay wax ci li nga xam ne Wally defaat na ko defaat na ko ci sa famille. damay sant yàlla rek. ndeysaan Seydina Mohamed sama xol dafa tool ndax man damaa bëgg njabootu coon sekk gi damaa bëgg njabootu coon sekk gi yemalewu ma leen ak daf ndax seen baay ba ca yoof tëdd moom laa leen di xool. bu di xool dama leen di yërëm. ndax seen papa daf leen a manqué nag. seen papa daf leen a manqué mu bëgg ma bëgg sama njaboot. papa ba mu dalee ànd ak moom ba léegi lu ne dégg na bu tukki masaana am nit ñi dañoo sob ñëpp dem bàyyi ko day day am ñuy yëndu di xool ba xam dem na wala demul ma ne ko dalal yaa ngi ci yoonu siraatal mustaqim papa bëggul lu ma naqari papa bëggul ma xiit papa bëggul ma mar boo xuloon man sax boo ma defee dara boo ma defee dara rek papa dalay mere attan na laa songu xeex ak noo mënti toll mu song la bu jógee soirée man lay bala moo dugg néegam lu mu jënd man lay jëkk a jëndal ñëw fëgg ma ma ubbi jàmm rek lay am mais ñaana sama doom ji Waly sekk nag lu rëy lii mu def yàlla na ko yàlla fay lu gën a rëy lii téeméeri junni yoon te moom sama xarit la ndax moom moo ma bëggal boppam avant dara di xew dara amul ci man la doon nekk bàyyi état su bàyyam bi ñëw sama néegu ñax yi dëkk fa ndax bëgg ma bëgg lii du tey démb la mu bëgg sama waa kër ñi nag loolu li mu naan sama waa kër bàjjen xam sekk rek lay topp toppee waloon lu dul deret toppee waloon lu dul ñu yàgg moom di liggéey ak moom te famille lañu nag ñun ñëpp ñoo yem ñun ñëpp ñoo yem fa yàlla mais famille lañu ma topp ci bàyyam sës ci moom rëkk bëgg nag sama mag jee tëdd ca yoof ñu tëj buntu ba roppi caa roppi caabi ji loolu lu ko gën a métti ci yàlla wàccewu muy am lu muy bañ di borom bañ ñu tëj ko ci néeg bee rocc caabi ji lu gën a métti loolu yàlla wàccewu mais maa ngi koy muñloo suñu borom ndax xam naa ne yombul day di coon sekk ak ni mu bareeg bañ ñu tëj ko ci néeg ci caabi dafa métti dafa métti yamale ko fii rek te Wally Seck barke lu bon jëmale ci moom laa yërëm billaahi di nga ko këppoo wàcc sa bopp ndax mu ngi def ci jàmm ni mais nag dafa soutenir ay ay ay ay mbokkam ñun ba ñuy tudd wala ñu ñuy xam Thione Seck moo tax mais mu dem mais waa këram gën ñoo téye mais kon nan leen ñaanal suñu borom gën leen a samp maa ngi ñaanal ñëpp nag man sama caam ñëpp laa bëgg sama doomi caam ñëpp laa bëgg mais waa kër Thione Seck yi dañu maa ñor lool ndax fee seen bàyyi tëdd jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf